dem naa Medina Baay ma julli aju may Medina Baay dem naa Medina Baay ñas ma julli aju may Medina Baay man la ma gis ca kër Baay ñas diine naa fa doomi Baay ñas sëriñ maa di mu yaay njaay ture sëriñ maa di yóbbu ma Baay ñas ma dem si yaari xabru baay man ba may dugg fa laa daje Alaaji Barxam Jóob come stai come va tutto bene va bene tutto a posto ak Buri Fashion euh, rendez-vous le 25 bi di suba incha allah via Stradella diye ci diye ci mooy fukk ci ci tubaab mooy dix dix mhm. ah voilà ngeen ñëw xam nga ma xam nga sama affaire man eh, damay yëy di yàpp di warax eh, léeg ma sax xam eh, léeg ma buusu <laughs> ah ngeen ñëw ànd ak Boury Fashion voilà ñu bëggee ànd ak suma fils ci Yves ànd ak Malick Diaw ah ah sama fils xaadim euh, borom jumaa ji mm. ah mi ngi nii ñu àndandoo daal di defar bomba mu baax ñëw leen nag diine la y'a tout y'a manger y'a boire y'a à y'a tout venez ah defar ba bi baax di jëy ñu jox gars yi rendez demain ah, vendredi bi 25 incha allah le 25 bi ak Boury Fashion ah suñ jarbaat ñu def luñ saf suba jaamoo suba jaamoo suba jaamoo doo po <laughs> yaa nag caaw. monsieur Mam Fama salon Bakhyai Couture am Torino monsieur Ibou Thioune Torino monsieur Mbida Sarr Torino monsieur Diagne Torino monsieur Dembélé Lawbe international invité d'honneur DJ Yves Malick Diaw PDG MD Production madame Marie-Louise Sisserova Louise Hart from Front to Prod l'international Mbaye Diagne footballeur sénégalais ma ne ko dugg bi ñaata la mu ne ma dugg bi personne seule cinq 250 euros table 4 personnes à 250 euros ñu ne événement bi fan lay amee ñu ne moo ngay amee fi nga xamante ni moom moo di foofu ca place Stradelle la 10 ah kon nag waa Milan waa Torino waa Brescia waa Napoli waa Belgique France Allemagne ñëpp a ngi koy wàcc ci guddi gu mag bi nga xamante ne Bourri Fashion Couture moo koy amal foofu ca Torino ce vendredi 25 mars ànd ceeg Tarba Mbaye ak Mapenda kan mooy présenter événement bi.